pro lay doon ak wo xamne ne ci bir magal ga lay doon ak lo xamne ginaaw magal ga lay doon la ci jitu nak moy kep ko xamne membre muqaddimatul Khidma nga te nek ci bir rew mi wala nga nek ci diaspora bi la la ca war muy la la ca war ci saw sas nga xam ko te ko koo ndax juma ji incha allah su weru safar tero danañu def entretien general bo xamne ne lu fi pile wala lu fi ventilo wala lepp lu fi yaq rek danañ ko defar te jumaa ji li fi nek ci ay pile wala yu demee noonu rek danaka mat na ñetti junni ëpp wala mu ëpp ko kon lolu féré yu bari la kon su ko défé lolu moo tax nag suñu jambar yi nga xamné liggéey bi naka jekk ñoo ci and ak ñun muy wa diaspora bi euh, man nañ cee njëkk tuddu wa fondation muqaddimatul khidma ci njital serigne amsatula am serigne cheikh john soxna maymuna soxna mam ñu leen ci soñu ci xamné magal gi jupsina di soñu it wa afrique Euh, mën nañoo teg soññe bi ci sëriñ ma fëri Ndiaye ngir moom mi nga xam ne mooy coordinateur général bi waaye fu mel ne Guinée Conakry Côte d'Ivoire Mali Gabon euh, Togo ba ci dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen ci soññ ñu xam ne màggal jub si na euh, ñu soññ seeni cellule ni doon waa Europe ñu jël soññe bi teg ko ci loxol sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy coordinateur diaspora bu Europe ngi waa Espagne Sing Baye Dame Lo mi Cheikh mustapha al Karim niki ki wa waa euh sëñ Ibrahima Diaye Qasida ak daru ture, Touré niki ki wa Belgique sëñ Abbas niki wa france France eh, ñomit faté wuñ len sëñ Amdi mbacké ñom ak eh, coordinateur sëñ pap Ndaw niki non timit euh bel niki non timit eh, Hollande wala Suède Danemark ba Turc Allemagne Norvège Portugal dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di soññ ba ci sous-région bi Afrique ak dëkk yëpp fàttewuñ kenn dal ñu xam ne daal màggal jub si na kon membre yi nga xam ne ñooy membre daayira Moukhaddamatoul Khidma te nekk ci bitti te yor ay cellules daa laaj ay addiye yu jëm ci entretien bi ak waajtaayu màggal gi dëgmal si na loolu nag dafa laaj fere yu bëri jumtuwaay yu bëri ndax waxuma la entretien bi ñu waajale màggal gi waaye biir màggal gi daanaka juróom benn téeméer wala juróom-ñaari téeméeri nit danañ fi nekk fixé fi te ñooñu dañ leen a war a waajal nit ñu màggale ni ñu màggale seeni i kër muy fere yu bari kon loolu ñu ngi ciy soñ ñëpp euh, ngir lépp loo xam ne daal euh, ni ñu waajale suñ kër yi xam nañ ne barab bii moo gën a yell ci loolu moo gën a yàlla ci waajal ko moo gën a yàlla tamit ci dundale ko niñ koy dundale ci suñuy kër kon te loolu lépp euh, ñun ay soldaari sëriñ bi lañ yoo xam ne sëriñ bi moo ñu digal ngir ñu nekk fii ci sàmm wormay barab bi ak di sàmm di saytu entretien bi niñ koy defee ci jumaa ji noonu lañu koy defee tamit ci euh, armeel yi ak armeel yu bàq ya muy laaj ay jumtuwaay yu bëri kon yàlla nañu yàlla tabbal rek ci bayit yi nga xam ne sëriñ bi ñaanal na ko képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci jumaa ji euh, tey ñu koy faral di wax muy suñuy bayit yu ñu ndamoo nag muy wax fir li man banaw bina arrafi wax fir li man amarahum bi jamih wala jamihi man ahanahum ala bina ihal bi fadlika tala yal nañu yàlla dugal ci foofu te yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan suñu borom mu nangu liggéey bi تدفل نتوفيخ السلام عليكم ورحمة الله